Rewmi 24 TV. bisimilah dal leen ak jàmm ci xibaar samedi 16 décembre. mu mel ne Cheikhou Omar Diagne bañ ko arrêté ak léegi rek toll na ci ay weeri weer yoo xamante ne rek moom mii di Cheikhou Omar Diagne ma nga ca prison ba bu ñu sukkandikoo rek ci avocat bi mi ngay xamle ne rek moom mii di Cheikhou Omar Diagne dugaleen ko rek li nga xamante ne moom mooy ab liberté provisoire maanaam rek pour libérer Cheikhou Omar Diagne nga xamante ne rek yàgg na ca prison ba daanaka rek léegi mu mat at ca bañ ko arrêté ak léegi fii ñu wax ak yéen kay ñuy xaar rek mooy libérer ki nga xamante ne mooy Cheikhou Omar Diagne mi nga xamante ne rek askan bi dañu ko soxla bu baax a baax rek ngir ay révélation yu muy def ginnaaw nag bañ ko arrêté ba léegi rek mi ngi toll ci rek ay weeri weer yoo xam ne rek moom mii di Cheikh Omar Diagne Dial jamono yi ah, maa ngi foofee ci prison ba fii ñu ak yéen ñi nag tombé ak euh, samedi 16 décembre avocat bi ma ngay xamle ne rek Cheikh Omar Diagne dina am ab liberté euh, provisoire fii ñuy wax ak yéen nii